mais mention spéciale mère Mariama Keita parce que gis naa fi xale jigéen yoo xam ne. dañuy xëy suba ba ngoon mais moo leen mun. wallaay dëgg la. loolu lu ko waral mooy bëgg-bëgg bu mu am kaarang ak actrice de développement bi nga xam ne nii doon na ko. barki démb rek am na benn femme bu war a jëw kaarang formé jigéen yi lim ma wax mooy mère Mariama moo ko fi toggal kon ñu ngi lay sant ci turi jigéen yépp di nuyu ñing mi nga xam ne ni wax dëgg na yàlla su ma demee tey bopp idam bokk ci sama programme ci moom la jóge ndax moo ma fekk ma toog mu ne ma dimbale ñëpp yombul waaye am na loo xam ne soo ko defee di nga dimbale ay doomu aadama idam bi dama bugg nga enrôler ci ay élèves bi ma ko ci enrôler dem naa ba recevoir ay félicitations Sokone c'est que dama leen dama leen roof galgal moo gomis nangu loolu ci ñoom def ko ci suma programme di nuyu ñi nga xam ne ni ñoo ci nekk di ko liggéey madame le maire c'était Yacine Badiane ndax man ñëpp xam nañ ne équipe bi ma àndal maa ngi leen di sant di leen gërëm ndaxte gis nañ ma su may dox fu ma toll rek bu dee courant dina am ku ma wone ko bindal su dee ndox dina am ku ma wone ko bindal su dee nit ku nekk ci ay jafe-jafe am na loo xam ne mbaam du jur si mbooloo dinaa ko ne bindal suñ ñëwee tam ci lu mel nii damay new benn conseil technique wala benn collaborateur ma ne ko yoral ma dossier bi loolu si laa ko toxee ci loxo madame le maire Yacine Badiane may wax ne quartier yi nekk Kaarang yépp huit quartiers yi fi nekk fu si nekk dem na fa ak délégation jël fa lu mat deux cent personnes deux cent personnes par quartier boo ko boolee day nekk mille six cent personnes ma jóge ci ne waa Jakarta maa ni Kaarang lañ bokk jëlal ma leen deux cent cinquante nga yokkal ma leen ji ma ne leen aussi béy ci sa weewu tànk 46 conseil municipal bi jël leen jël délégué de quartier yi jël aussi ci sëriñ daara yi ñu ñëpp boo leen boolee dina nekk ci 2000 personnes yoo xam ne ni dañ leen di enrôler ci mutuelle bi te liggéey boobu maa ngi ko tegoon ci loxo madame la maire Yacine Badiane mu am si njàppandelu équipe municipale bi yëpp Fat Ndiaye madame Diouf mais mention spéciale à CT Balla Diop. Balla vraiment maa ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bu mucc ayib bi ngay def ndax yaa ngi ci engrais bi mbasa di la mbëkk nga nekk ci urée bi mbasa di la mbëkk nga nekk ci sànke yi jaar a seen di la mbëkk te loolu lépp bëgg-bëgg kaar ak moo ko waral man nag santé dama ko def priorité ndax dama fekk Diogune Gomis def ci jéego yi avancé ba si moom moo commencé woon logement maternel bi yàlla def ma yeggali ko mu ñëw commencé centre case de santé Karangba yàlla def ma yeggali ko noonu laa ñaanee yàlla centre de santé bii moom moo ko tàmbali woon ak Puma te xam naa ne ànd bii ñu ànd ñu boole suñu xol yi yàlla dina ci boole yërmande bañ yeggali ko si kàttanu yàlla kon monsieur le maire maa ngi lay sant di la gërëm di wane ne ñi doon wut Karang bëri nañ mat nañ juróom au moins. mais maa ngi seede ne projet yi commis amoon fii ñu nekk di ko liggéey ba léegi mu ngi ciy waxtaan ak man di ma ci jàppale ñu ciy ànd ndax boo waxee mu ne kaarang moom a ñor Ousmane Ndiaye it bi suñ ñun ñëpp suñu intérêt taxawee ñu weesu élection dafa bàyyi lépp lu mu man moom gomis Ousmane Sène ku ko xam-xam ne infrastructure yu bëri ci loxoom la jaar hmm. li may wax mooy ñun ñii sax dama koy wax suma bopp nañ ñaan yàlla ni Ousmane seen yore woon dëkk bi jógee fi Gomis yore ko dëkk bi bare fi toog fi tey di am ak nit ñi jàmm war na doy ku ci nekk ndaw buy wut dëkk bi xam ne bu ngay dem tey yow ëllëg sa morom may attiré waat attention nit ñi ci loolu nañ joxante loxo xam ne bu wut jotee ku nekk am nga droit wut mais bu intérêt Karang taxawee comme nu mu taxawee ni nga xam ne président moo soxla majorité assemblée nationale pour yeggali ñu suñu de santé financer ñu suñ jigéen yii mhm. ñun ñëpp dañoo boole suñ doole yaakaar naa def nañ ci jéego yoo xam ne Mimi Touré mi nga xam ne nii mooy wër Sénégal yëpp suba dina ñëw quarante jigéen yi la soxla te li may wax nag mooy jigéen yi mbéjum kanam borom a koy fejal boppam ñun luñ fexe woon luñ mënoon mooy fexe ba Mimi Touré ñëw fi suba bu ñëwee jël leen kàddu ne ko deux cent millions yu dugg ci Toubacouta pour jigéen yi 200 millions yu dugg Sokone pour jigéen ñi 200 millions yu dugg Foundiougne pour jigéen ñi Kaarang ci lañ bokk te dañ ci war a gis seen bopp. kenn du leen ko waxal suba trois heures dina fi ñëw fexe leen ngeen ñëw kër ga ma jox leen kàddu ngeen waxal ko ko. bu teree tam bu liy jeexee ngeen def délégation ñu ànd àndaat dem ci moom ndax kaarang jigéen yépp xam nañ ne ay liggéeykat lañ bu ñu xëyee ñu ngi ci marché bi bu ñu xëyee ñu ngi ci garage bi bu ñu xëyee ñu ngi ci frontière bi kon financement yuy dugg ci Sokone ak Kaolack ak feneen Kaarang moo leen gën a yeyoo te bugg naa suba jigéen yi wan leen seen bopp laajal leen ko ko mu jox leen ko tax yeyoo ngeen ko ndax ñun liñ mën ñun koy def foofu laay profité di nuyu ñëpp di wan ne liggéey bi dañ koy continuer commune quartier bu ci nekk. dinañ fa jël ñi ma leen wax nii di woowaat xale yi ak mag ñëpp ñu nekk kaarang ñun ñoo bokk kaarang nañ bokk ndey bokk bàyyi yàlla mooy tànn ku ko neex mu jiital ko bu wërsëgam jeexee mu pare fi mais nañ rafetal nañ rafetal may attiré waat attention xale yi nga xam ne nii ñu ngi ci langue politique bi mag ñii ñoo ñuy ñaanal mag ñii ñooy suñ yaay mag ñii ñooy suñ baay te kilifa lenn rek nga ko mën a jox muy respect ak considération kon nag loolu laay woo xale yépp ci loolu nañ jox mag yi cër ndax mag dañ na ko loo bokk ak yàlla mun a yàgg te ñun dañuy ñaan yàlla ngeen gunge ñu ba ci kanam yàlla dëgëral seen taxawaay may leen wér ak wérle lii laa amoon li ma si wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah